ziar bu baax a baax a baax ñu ngi woon si beneen numéro Fernane Ndanane ñu fekk si woon benn soxna su macha allah ñu koy wax soxna Anta Barham moom mi ñu jugee fii ba Waalo soxna Anta ñu ngi lay waaw maa leen di fay bu baax a baax di am mbégte bu baax ci yéen di leen ñaanal eh, jàmm ju sax. ci kàttanum yàlla jeeg mën gi di leen ñaanal seen lii yàlla na egg foo xam ne euh, foogu leen ko fa woon euh, may nuyu suñu waa kër di nuyu ñëpp euh, di nuyu sama papa Modou Ngaye maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu sama yaay mu Juuf mm-hmm. waa góolam ñi bàyyi ma kenn ak li ko wër waaw merci waaw bu ko defee kon dañ lay bàyyi rek nga nga defal gars benn affaire bu ndaw comme yaa ngi yëngu ci wàllu zikru la ñu bàyyi la gars yi nga nga defal leen benn affaire bu sew rek. waaw ma koy may tamit sama papa. Mhm. sant yàlla war na jaam. wante mbëggeel barhama. bëgg nañ la dootul deñ. bay mu du jarama. wóolu naa la ngir yàlla billaahi baay jaarama fonk naa la ngir yàlla billaahi baay jaarama ah, lan la dugal ci sikar ah, man nag eh, moo tax su may sant dama ciy jiital à chaque fois eh, sama papa ndax mooy sama buntu ci yoon yàlla mm, bu sama xol bu ci zikar nekkee moom moo tax mhm. ndaxte lieu bi ma yaroo ñoom ñëpp euh, macha allah ay taalibe cheikh lañ maa leen di nuyu bu baax. Mhm. mais euh, xam nga taalibe cheikh dafa yaatu. Mhm. ay taalibe sëriñ Babacar si lañ. Mhm. yaakaar naa anam ki côté boobu yëpp ñi ma xam suñu kër laa fa yeewu fekk ñu nekk taalibe bàyyi sama papa toog di zikar may dégg muy awu sama dënn ma bëgg ko. taala rek tax. ma koy sant bu baax a baax loolu gën na ma cee dugal ndax dafa doon loo xam ne euh, mooy dundal ruuxu mhm. zikkar mhm. Euh, baatu laa ilaaha illallaah doon loo xam ne mooy dundal ruuxu doomi aadama mhm. léegi yow ba nga tàmbalee sikar ak léegi ñaata temps la def loolu yàgg na yaakaar naa bi ma commencé di mën wax laa commencé di tudd baatu laa ilaaha illallaah waaw ndax euh, sama papa da ko da ko da ko bëggoon dafa ndeysaan yàlla da ko may voix bu neex macha allah buy zikar sañu xol yëpp day sedd day féex. Mhm. ma ci topp ba loolu moo ma topp ba tey euh, ma loolu tamit nekk ci man yàlla jooy tamit feeñ ba mu xirtal ma ci euh, bëgg nekk dëgg dëgg taalibe Cheikh dëgg dëgg taalibe Cheikh Ibrahim Niass. Mhm. Euh, bi may am diggante dix ans onze ans bu fekkee boobu yaakaar xanaa sama onze ans matagul. Mhm. laa ci gën a sóobu ndax euh, mbiru yàlla dafa ma mës a neex euh, ma dem sama papa damaa toog di werd jël sama kurus di werdantu nii mhm. sama mag bu góor romb man ne ma yow ku la jox werd ma ne ko man kenn mu ne ma ay werd dañ ciy am digal mhm. si laa dem sama papa ne ko jox ma werd mu rëy jox ma werd ndeysaan lu nekk nag wax nañ ko ci dangay ngay dof waaye may fàttali nit ñi ne salaatul fatiha mhm. ku mu defaral du la yaax te xale da ngay jiital ci dënnam euh, yàlla ba pare mhm. balaa nga koy jébal kenn ok merci waaw loolu am na solo bu baax a baax a baax bu ko defee dañuy gën a xuus si waxtaan bi rek léegi yow ci wàllu zikur laa dafa gum nga si benn single wala dara ba nga xamante ne ko way bàyyi non man nag euh, parfois dañuy am benn jàng am mhm. ma dem fa ñu vidéo Euh, parfois ñu dugal ko YouTube ma dugg gis ko mhm. opinion day li si mel ne Limaamu Laay lu si mel ne Njawar Jaañ yëpp parfois dama daan dem euh, zikkar mhm. ñu vidéo ma waaw parfois ma dugg gis euh, sama benn vidéo ci YouTube bi mais nag booba tey defaguma ci vidéo defaguma ci benn single man sax samay as sax mën naa ne ci gàttal xale nag amul mais samay as gàtt na ndaxte sama 17 mhm. ans bu mu ci duggee yàggul waaw dëgg loolu am na solo mais comme comme comme ci ci ay jàng. Mm-hmm. comme ay cant ak yooyu noonu. Mm-hmm. maam ñu ngi lay ñu ngi lay invité si ay cant yu mag yi xamante ne da ngay ñëw daal di yore spectacle bi. waaw ndaxte parfois damay bu ma demee gàmmu Kaolack. Mm-hmm. dañ may jël si am ñu may jël si ne ma dangay ñëw zikar. wala ma dem fenn euh, voyage ñu ne maa nga fa njiwoo ma ne ma force dañuy yaay ñëw zikar zikar bi. Euh, daal bañ na dañuy dañ ci dañ ciy taxaw sax ne ma boo ñëwul dañ lay mere. Mm-hmm. waaw macha allah mais ñoon dinañ faral di la di la di la jox ay lu si mel ne ay transport wala boo sikkaree ba pare. ñu yëkkati ay addiyee jox la. waaw man nag euh, yàlla dafa def ne euh, baat bi su ma koy tudd rek li muy def ci man yaakaar naa leneen mënu ko. Mm-hmm. ndaxte parfois damay taxaw di zikkar sax tey su ma yëkkatiwee nit ñi dañuy jóg. ñëw di ma may xaalis mais sama paree fa laa koy bàyyiwaat génn ndax la ma ca yëg man xam naa ko kon ñoom lu ma ci yàlla di fay ñoom yaakaar naa ñu ma ko fay moo tax loolu yëpp xooluma ko ci. l'essentiel dama ko bëgg dama bëgg di tudd yàlla bu baax a baax ndax euh, loo ko tudd rek mu tudd lu ko raw. waaw macha allah. waaw loolu am na solo bu baax a baax lépp bu ko defee. Mhm. dañ lay bàyyi gars yi la seetaan nga defaraatal leen xam nga beneen affaire bu ndaw sa sa baat bu neex bi gars yi mën a découvrir la belle voix de Anta Mou Barham. lay mhm. lay lay lay la lay lay la la laay lay la la laay lay la la laay lay la la lay la la may daganal te yàlla may may ngëneel maroy ñëway rasuululaay baay ba jot ci may sell ya barhama ibnu abdallaay baay ñas géer gi di sab géwél baay danaa la way ba ne tasar yow yaa ma ne xasa njool bur si yoo ko way ba dem njooli bu juuf way ko ba dem may jéema si ñooñu ñaar baay farlaawu buur bu yóbbu ma waykati maa ngi leen di ñaan ngeen bokkute way le ma baay gor saa ngi mooy ki jara way baay nañ leen wasaare hay tagama aset sa muy bawoo këram mbindeef yépp a ne muy tàggatoo di fàttale yaa baay est-ce que li lekk fa bawoo jaari ñaseen sa xabru maam alaaji ñas bam naan ko bàyyi man maa ngi ñëw ñas jot naa ndigal ci saa borom bam fa bawoo jaari Dakar soppeem ya teew saay dapoor keroog la bàyyi wekki mbirama ñas jébbal ko taw ba Abdallah gis naa keroog ku jeex ci bàyyi turam ba moo di misri yoo bam naan ko bàyyi bu ma fi bañas gëm naa ne mbir mi sotti na sàllaahu la waxoon la def ba mu tàggatoo xaliilu laay la daa di ñaan ndogal farlaahu buur bi yóbbu ko barama ànd nag kabil seen roppalaan ba daa naaw masin ba naan allahu akbar subhaana malikul teya turum docteur la fekki woon ndogal ba moom la fekki woon lool la rabbana waxoon ne foofa lay dajeek borom sax na fa ñeenti bas saxoo fa jàng alxuraan di ñaan laaw rabbana mu jéggalaw ñu ñam ëllëg rasuulullaay teew na keroog ànd ak sa sëmba Cheikh Tidiane ma habdullaay teew na keroog ànd ak njaboot go ñuy zikar azraila ka ñëw ni yo te naan ko yaa xalilullahi ñes rabbana moom ma xebal ma jël si ruu si sa ndigal baraama daa koy dalal naan ka defal yàlla wax man sopp naa dajeeg ndogal te fekk mooy la ma gënal wante rasuulu man ko naan fexe la andi teggin xamal ne baay mooy sama waay te man saa waay duñ ko sonal kabir ne may waxtaan ak baay baay mel ni kuy gëmmi nelaw ma foog ne bàyyi dafay nelaw fekk na ruug a jëm aras wante keroog londor yépp a daal ca yéemu nañ ci bàyyu aas nee nañ la xew sa hôpital ba yéem na képp kuy mbindeef docteur ya yépp dajaloo ñu toppatoo ko noonu waree jégbal ko waa jëm handaloon est-ce kabira xam ngërëm ñu ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo soxna Anta mu Barxaam waaw macha may remercier bu baax a baax a baax ñi ma àndaloon si équipe technique bi muy Bamba Bimbal mi nekkoon ci caméra bi ah, ak monteur bi ah, ci son bi Seydina Mandione ki nga xamante ni moo nekk si waxukaay bi mooy seen mbokk taalibe Sidi Noreyni ah, ñu leen jox di daje beneen numéro feeñal ndaanaan soxna Anta lan ngay tàggoo tey. waaw may sant ñëpp encore di leen sant di sant euh, famille ba bi maa ngi leen di sant bu baax a baax macha allah mhm. waaw di leen may hit benn son boo xam ne ni jës bu la. Mhm. di leen ñaanal yàlla yal na xéwal tuuti si euh, kër gi. si ñoom ñëpp macha allah. tub leen te tarbiyu Cheikh Tidiane wàcc soodaan laa ilalla xeetu Seydi Barhama fase leen hattina bëgg yàlla bañ a réer ak baay seexoo di seen mu rabbi mooy Seydi Barhama yàlla daji pagoy lislaami jébbal ko Barhama tijji ndàmmi leeri jébbal Seydi Barhama yàlla mi daan yónni yónneetul jëmmam jeefi teew sirul xaq ñëw na soo moo di Barhama ñay buy xalla mambal doom yaa tax mañ soo muñ leen wattu leen mi lool moo neex Seydi Barhama lab leen ci pey wi te bàyyi bokkaale bàyyi bëggul loolu bokkaale day yëngal xaras di na solo bu baax a baax a baax léegi dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak askan wi ak tamit nga nga ngay wax jeunes yi nga xamante ne ñi ngi dund Zikr la comme yoon ni nga koy defee ban message nga leen di lancé waaw may am mbégte bu baax tontu ci loolu mhm. ah dafa doon loo xam ne amul pertement mhm. même bu fekkee ne fayuñu la ci dërëm li nga ciy am mu ëpp loolu euh, man moo dëgg yàlla su ma koy tudd ni muy dundalee sama xol rek loolu rek laa soxla kon nag euh, ma leen di ñaan ngeen koy fonk nit woorta man boog mënumaa toog journée la mu cinq minutes sax ko toog te wayantuma zikkar ba ñëpp dañ ma cee xam kon nag ma di ñaan euh, ngeen gën cee góorgóorlu te bañ bañ cee dugg ngir dara bu ngeen ciy dugg duggul leen ko nax leen cofeel gi bëgg cofeel gi ngeen am ci yàlla ñuy ñaan yàlla def ñu dëgg dëgg dëgg taalibe Maulana Ibrahim dëgg dëgg taalibe Cheikh ndax euh, dañuy sabablu rek ba keroog yàlla di ñu ko nangul waaw ma leen di wax nag ne damay dégg parfois nit ñi naan ñun tur yàlla la ñuy dundee waaw tur yàlla ruuxu lay dundal mais foog ñu lekk ceeb bi ci la bokk dañuy lekk <laughs> ah, waaw jëmma dundal jëmm ji mm-hmm. waaye ruugi moom ndaxte jëmm doomi aadama sangoo ba pare dafa war a xool lan mooy sang ruuxam ndax ruux gi tamit dafa war sangu ba set waaw te loolu lenn ko ci man dara mooy zikr mhm. moo tax nañu faral de zikr lu bari waaw ma leen di sant tamit bu baax a baax a baax alhamdulilah mhm. yaa seexu tijaani anta barama ibnu abdallah di barama baayaa di borom kaala gaa di tijaani barama barhama cey zawaaji cey zawaaji Baay Ñas kii mooy borom kaala gaadi tiijaani barhama barhama ha tiijaani xubdu rabbaani Baay Ñas billahi xubdu sama biyo tiijaani barhama barhama ceexu tiijaani Xubdu rabbaani Baay Ñas kii moo Tijaani Barhama